ñun mënuñu am tiitaange ndax xam nga Sénégal Sénégal India li muy produire euh, si si wàllu pomme de terre ak euh, oignon mën nañ wax ne garantir na pratiquement soixante soixante dix pour cent euh, producteur national waxtuma la nag suñ ko boolee ñi nga xam ne dañ leen di accompagner muy producteurs locaux yi nga xam ne dañ leen di jox semence jëndaat seen produit si ñoom. donc si fànn boobu suñu chambre froide yi nekk diggante Mbaan ak Diamniadio bi gis ngeen ko am na capacité de conservation de pratiquement cinquante mille tonnes. te fi mu chambre froide yëpp dañu fess donc lolu amuñ ci xalat fii 6 mois ba 8 mois ñun mën nañu assurer euh, production euh, Sénégal ci walu pomme de terre ak oignon mais terewul nak liñu def ni tay duñ ko yemale fi parce que tant que état baa ngi def appel ci ñun pour ñu jappalé leen ñun taxaw nañu aussi pour gunge leen ci li nga xamné moy xex ndol bi accompagner personnes vulnérables